asalaamaaleykum mbokk suñu TV donc téléspectateur yi nga xam ne ñu ñooñu di euh, tàmbale nuyo bi di ko teg loxo monsieur le maire xam ne mooy autorité bi nga xam ne euh, moo ñu dalal ci dëkk bi euh, maa ngi tudd Abdallah Camara di fi représenté ci région de ci département Foundiougne surtout fii ñu nekk ni Kaaràn donc projet bu ñuy wax projet euh, PARERBA projet d' à l' immigration rurale d' à l' rurale et euh, euh, à l' immigration rurale et à l'employabilité des jeunes dans donc boo leen déggee loolu ci PARERBA mooy projet boo xam ne nii dafay appuyer jeunes yi nga xam ne nii ak jigéen yi nga xam ne nii tey jii ñu ngi ci. marché arachidiste donc Fatick la xam ne nii tey jii ñu tudd ñoo xam ne nii tey jii ñu ci tubaab bi mooy ne ci seen jaar bi seen général donc ñoo ngi leen dimbale bu dee jeunes yi ñu baal su dee jigéen la également aussi ñu ba am xëy am tey wala tey am loo xam ne ni mën na leen mën nañ ci sutura te loolu mën na jaar ci am tàngaay yoo xam ne loolu daal euh, mooy nekk ci biir doon na taaral euh, parce que déjà ci carte la ñu leen nekkoon carte la ñu euh, am les di Toubacouta te Tamba Dieye Nioro Alassane Tall ak Saalum Diané bu ñu commencé seen activité commencé ko ci prévision bi ñu commencé également ci am tournage nag ñu vraiment waxtaan ak autorité bi ñu vraiment arrondissement bi cinq communes yi nekk te vraiment li ngeen di def am na solo boo xam ne ñu koy ji bëggoon naa ngeen impliqué ci loolu suñu collaboration commencé ak Kaaru ñu commencé ko daal ak benn forum bi lépp ñu ngi defoon ci affaire bi ci gis bi forum boobu noonu nag tey bi mën naa ne sax moo jëm ñu parce que forum bi dafa réussir ñu wol ba tey kon continuer suñu activité créé fii li ñuy wax conseil communautaire Dakar loolu nag tey jii nii suñu plateau bi bokk na ci thématique yi nekk léegi mooy emploi des jeunes mooy affaire immigration clandestine mu boole ci nag contexte bi nga xam ne ni moom la ñu covid 19 mu ànd nag ak li nga xam ne ni comme

ñi nga xam ne dafa ràññee ko ci wàllu métier yi nga xam ne ñoom dañu leen ko gën a ko xam ne jiite leen ñu ko wax ci culture nga xam ne moom également aussi bi nga xam ne dafa xamal li ñu xam ne comme que ñu ngi leen di tey euh, plateau bi ñu nekk ñu ko fi jëlee fas yéene nag waxtaan ci thématique yi ma la ko jëlee donc tey jii ñu ngi bu paree xam ne ginnaaw li nga xam ne ñu ngi ci ñu ngi am

loolu la ko defal maa ngi yaakaar nañ ne nii vraiment jaay ak mesures yi nga xam ne nii jaay naa di génn dëkk ci ñoom seen dëkk dañu dara sax ñu wàññi li nga xam ne waa bi parce que loolu mooy ñoom ak suñu dëkk bi. mën naa mën naa yem di ko présentation bi ci kàddu bi monsieur Mbaye bi nga xam ne nii tey jii moo ñu dal ñu gën ñoo dalal a aussi dellu si waat ci plateau bi di waxtaanee également ñun di fàttali ne tey ak ñoom caravane bi nga xam ne dañ koy déglu di jéem a jéem a jéem a waxtaan ak communauté bi waxtaan ak population bi nga xam ne vraiment pour wàllu wàllu mbéy mi moom également ci ci jamono bi dañ koy taaral vraiment dañ koy jéem a jéem a jéem a jéem sama naataango bi ñu toog di président social bi sukk bi suñu grand yow tamit ñu ngi xam ne yaa toogal pare ba fii ci ñu euh, directeur suñu kii bi euh, Mamadou Sow waa dëkk bi yëpp vraiment di rafetlu seen liggéey donc comme ni ko waxee rek dañ si dugg tey euh, pour jéem a waxtaan si ñetti thématique benn bi jëm si pare ba si boppam njeexit bi ñu am si askan bi beneen bi ci li ñuy gën mbëkk mi xale bi def te nga xam daaw laaloon na waataaram bu baax a baax ak eh, ñu joxale ci mbas bi rek comme ni ko waxee waxtaan ci eh, ñaax ci nit ñi donc je crois que loolu laa amoon comme mot d'introduction di leen dalalaat encore une fois a yàlla rek waxtaan bi yëpp ñu ci njëriñ donc loolu lañ amoon comme mot d'introduction di di leen dalalaat bu baax jërëjëf taxaw su ko euh, defe naa ne yow daal comme ni mu ko waxee sànq yow la yàlla dogal nga nekk ci bopp CCA CCA bi nag nekk kuréel goo xam ne wax dëgg bi ñu koy taxawal fii euh, population bi partie prenante yëpp ñëwoon nañ ñu euh, wóolu la tegle ci bopp kuréel googu noonu maire dëggal ko ak arrêté mu doon loo xam ne nii tey jii nii activité mag te xam nañu ne tey jii nii kuréel boobu amee ko ñu bëggoon également aussi ñu présenté wu ci suñu kii bi waxtaan ak nit ñi ci CCA bi naka la taxawee ñu nga ngeen dafa liggéey ba tey ak tey jii ñu fi leen fàttali projet bi ci seen waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ak Camara ñu population Kaaram ñëpp waaw te di leen xamal ñoom Pareba benn projet la boo xam ne dafay ñëw pour mun a xeex li nga xamante ni mooy ñàkkum xëy bi. bu nga encore li nga xamante ni ñàkkum xëy bi moo waral gone yi dem ci géej kon li ñuy def mooy. ñu euh, ñëw bañ ne maire indi leen fi ñu daal di monté benn bureau monté bureau boobu ñu ne ñu léegi am na bureau CCA waaw CCA nag ni mu mooy benn groupe la boo xam ne ñu kaarañ euh, dañ leen ko dénk muy liggéey boo xam ne ni koo xam ne ni yaa ngi kaarañ te nekk koo xam ne ni yaa ngi sëy di yëngu di loo yóbbu sa kër euh, boole nañ la ci képp koo xamante ni tam euh, artisan nga muy commerçant ku mën a doon rek ku yëngatu daal di wut loo xam ne yaa ngi yóbbu sa kër rek waa CETA bi ubbi nañ la euh, buntu bi nga mën a ñëw dugg dugg CETA bi jafewul maanaam nit ki fekk koy dugg dina am loo fa joxe muy lu mel ni loo xam ne nii da ngaa adhéré bi nag ba ñuy waxtaan itam ci vraiment ba ñuy waxtaan ci kanamu monsieur le maire la ñu ñëw nañ ko oyofal ñu def ko cinq mille francs boo adhéré joxe sa cinq mille francs léegi bokk nga ci CFA bi léegi nag boo ci bokkee jëriñ ba mooy di nga jox fiche boo xam ne bi di ngay remplir li nga xamante ni moom mooy li nga soxla boo ko remplir fiche yooyu dañ koy yóbbu ko gars yi ko bu ñu banque boo xam ne nii moom dina la financé nga mën a liggéey di fay ko d'ailleurs biñ ko commencé ak léegi yàggagul mais yàlla def na euh, jot nañ fee financé sax euh, neuf maraîchers te boobu affaire bi jàmpoon na jàmp comme jàmp na affaire bi day doog a léegi danañ di fexe euh, monsieur le dem banque bi porté comme garant bu ñu demee ñu dajale ñoom ñu neuf personnes bu ñu demee ñoom ñu garanti seen bopp ñu lebal leen xaalis ba fii ñu commencé liggéey ci maraîchage léegi nag li nga xamante ne mooy ñeneen ñi xeebul kenn même ba ci jaaykati caaf bi nekk ca garage ba. day yéeg ba ca kaw ba ca kaw soxla oto ñu ngi dépendre ci yow ak fekkente ne jënd nga liggéey te fas yéene nga ñëw dugg ci CCA bi adhéré bu dee jeunes ñoom euh, amul adhéré fanweeri ak juróom wàcc ci suuf kooku doo adhéré da ngay bind projet nga indi ko déposé bu demee na loolu xam nga comme dafa jóg pour jeunes moo tax mu defal ko wul jeunes yi affaire de ñoom it ñu war a góorgóorlu xam ne wax dëgg yàlla euh, lii yëpp buñ koy def Euh, bu ko état di def jaarale ko ci mairie yi parce que bëgg na ay ndawam dootuñ gën di sanku ci géej gi ay ndaw mën a toog seen réew liggéey mën a tekki te euh, aussi bu ngeen seetloo gis nga dëkk bu ne nga fa dëkk ñoo koy développé quarantaine ñun ñoo ko mën a développé amul lenn loo xam ne ni keneen dina jóge feneen ñëw def développé keneen koy jóge feneen leen rek la mën a doon muy partenaire comme ñu ñëw nañ installé ko fi fii nii la ca des mooy yeneen ñu soxlaa yeneen partenaires yooyu dañuy jaar ci leer ñoom pa ñoom xam nañ partenaire yi ñu dimbali ñu pour CSA bi am doole kon foofu laa amoon li nga xam ne moom a présenté bi demagum ko bi pour le moment am na euh, euh, solo parce que euh, permettre nañu déjà nga xam ne ñoom ñoo ci plateau bi daanaka ñoom également aussi ñu xam thématique yi xam ne nii dañoo ci waaye li gën a am solo tey jii dafa am lu ñu tënkee ci programme mu tey jii nga xam ci wàllu de sensibilisation lañ defal ci ak conseil de la jeunesse ànd ci ak que ñu ngi taaral projet bi ñu ngi ko presque un an waaye peut être ñu bëri xamuñu euh, ñu bëri également xamuñu li njëriñu jeunes yi nga xam ne ñoom ñoom projet bi ñoom suñu réew mi ñoom sax kon dëkk bi ñoom ñoom ñoom ci xalaat bi ñoom ci xel ñoom xale bi ñoom ci ñoom ci xalaat bi di tax nag ñoom te ñun boo gisee tey jii ñoom ci kaw plan boobu la wax mooy mooy dañu dañu complété sensibilisation bi nga xam ne ñu ngi ko tey dañu leen gàttee waaye tey jii am na nga xam ne ñoom suñu dëkk yi dañu leen déglu déglu donc tey tey plateau télé bi peut être dina permettre ñoom ñu mën a mën defe naa ne également aussi bu ñu waxtaan ci période ba dafay jaadu ñu wax jaar jaaram parce que tey période ba dafa am lu ko boo jëlee

l'instant dafa am ak wu de vingt millions de xam ne ñu koy def ñu commencé nag ñu ngi ci première région première région yi ñu commencé Thiès Diourbel Fatick Kaolack ak Kaffrine donc loolu mooy zone tànk ñu dénk nag projet bi consortium bi nga xam ne mooy jëriñu bi moo ko jiite man fa laa nekk ànd ci ak Caritas bu Kaolack ak FONGIP donc loolu moo nekk ci ñetti régions yi Fatick Kaolack Kaffrine éclosion nekk Thiès ak zone kuréel ànd ci également ak Caritas ci wàllu entrepreneuriat donc ñooñu ñoom seen projet équipe bi nga xam ne ñoom ñoom ñoo defal projet bi ci Sénégal li tax ñu jël ay ONG mooy xamal dafa ne man ma jàpp ni ONG yi ñoom xam ne kon liggéeyu ONG yi bu projet bi jeex ONG yi dañu ko yeneen i moyens te mën a ñëwaat continuer action bi nga xam ne ñu tàmbali kon Isabel déjà moom ci xalaatam jàpp na ne ministre bi amal na solo amal na njëriñ ci biir moom mi ngi xalaat bi ñu jóge kanam bi nga xam ne ñu mën a continuer action bi nga xam ne ñu ngi ci bi ñu ñëwee également commencé si ñu suñu action ñu tàmbalee ci kër para que nos impulsen de valor a que el alimento. Tienen que impulsen de valor a que el alimento. Pero yo trabajo en el mismo sentido. El dinero sano, la alimentaria, y si no es alimentaria, pero el alimentaria es una alimentaria, no es una alimentaria. képp ku nekk ci seen bopp la ñu koy ñu pare ci ñu la ñu koy ñu ñu ñu koy ñu ñu ñu koy ñu ñu ñu ay kër la yoo xam ne ñu ngi ay xale ci ñu ñu wax ko sàmm bi vraiment ñu am ay ñu ci ñu ci ci ci ñu la dem ci baax baax ñu trois kër la yoo xam ne taxaw na ñu tam la dem ñu ci ñu ñu laal sax dara ñu dem ñu ñu ci saal mu jaar ne ñaar ba di ñett kër la kër yi nag ñu ñu ñu ci ñu ndaw ak saal la xam nga mat vingt trois hectares la donc bu ngeen ko bokk am na tax yu bëri yoo xam ne trois hectares yoo xam pareel baa dafay ñëw ñëw ci ñëw ci ñëw def forage defal réseau boo xam ne ñu koy ñëw ñu koy dem dem dem wala ay bassin yoo xam ne ñoo ñëw ci ñëw ci ñëw ci ñëw ak ñu leen def comme ak ñu leen dans le champ léegi nag ñun ci ñu tàmbali bu ñu def moo tax ñu def ak ñu ñëw ñu ñëw ci ñëw ci ñëw ak ñu ñëw ñu ñëw donc ci la ñu def dana nag léegi ñaar ñaar béy ak ñoom ñoo xam ne am nañu ko ñëw fekk nañu ko ñëw ñu bëri ñu bëri jëm donc loolu moom la ñu nga xam ne ñu bëri ñu ngi ko ñu ñu sotti jàppale bi ngeen di jàppale donc ñu ngi ñu leen defal ko defal leen accompagnement yi te équipe boo xam ne ñu ngi accompagné day facilitateur bi ko ko ko ci ko waaye également aussi ñi nga xam ne tey jii mënuñoo bay mën nañu balaa ngaa bay dañuy wax ay communes am na ñoo jàppale ñu ne ñu nga xam ne ak yeneen la doon dañ ñoo ñëw ci jàppale ñoom jàppale ñi nga xam ne tamit pour bu génnee war a dem ko ak am yi ñu ñu war a xam ne donc tey ñu ñu ñu xam ne ñu xam ne valeur yi te xam ne ñu ci ñu ñu ci résultat yi ràññee ci ñu xam ne ràññee ci ñu ñu sopp ñu ñu ko xam ne ñu ñu ñu ko jàpp loolu moo tax bu tey bi ñu tàmbalee ñu nekkoon ci tàpp ñu ñëpp ñu moom gaaw parce que gaaw su ko ñàkk ñu loolu tey ku nga xam ne seen bu valeur la ak xale bu bëri ñu doon nangu ne xaaral mën na jënd donc tey gis nga tax tey ñu ñu ñu kaar ci famille bi nga xam ne nii dafa am lu mais tamit askan bi nga xam ne nii maire bi ku ñu mën toog collège bu maire bi ku ñu mën toog ci administration ci réew mi ñu toog ci la leen jàppale ñu ñu baax parce que tey jii taarab da ngeen jàppale ñu ñu baax am na ñu baax taarab da ngeen jàppale tey jii ñu toog ñu baax waaye ñun ñu ñu ci soxla ci la mel parce que tey jii ñu ci réew dañu ci jëlee ci taarab tey loolu mooy ñu ñu ñu ñu ñu ndax ba ñu tàmbalee ñu ñu ñu waa taarab vraiment ñu gis ne Allah ta kawo shi da kuma kuma da kuma su ta kawo shi da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma zama muku da nufin da kalama da zafin da kuma kafafu sun yi kuma da suke cewa da su kanin tsayi da da yin da da da ñu xool lan la ñu war a tamit suñu engagé ci Sénégal ñu ngi teg ci nga xam ne ñu tey jii nii fas yéene ngeen jàppale spécial bi nga xam ne ñu xool nañ ko. comme ni ko waxee ñu première activité bi ñu def mooy d'abord ci yeneen dañu war a bu paree ñu bu ñu taxawal CCA bi ñu accompagné leen def ay réunion ñu taxawal CCA bi ñu xaatu ñu benn xaritu yoo xam ne ñoom naa ko sëñ pour tëggal mais CCA bi taxaw ñu taxawal. léegi ak ñu ci tamit bi ñu def aussi mooy accompagné leen au niveau des institutions financières dem ci ñu accompagné leen baaw baaw comme ni ko si waxee dañu jógee ko ay fonds pour financer. je crois que activité bu day continuer day continuer parce que ñu ngi jàpp ci état bi ñu ngi lay liggéey ñu ngi lay liggéey parce que suñu ndaw la ñu accompagné moo tax mais dañu war a conseil municipal keroog ñu ngi def demande d'orientation bi ci kaw ñu ngi tënk ci état bi ñu ngi ñëw ci conseil bi ko xam ñu ko conseil ñu dëggal nag dañu war a jàppale moo tax ci biir bi dañ ciy sóoraale état bi dañ ciy sóoraale ndaw yi dañ ciy sóoraale jigéen ñi moo tax d' abord ñu jàpp nañ benn montant bi nga xam ne dañ ciy distribué par social wala bambam te ñu naan dañu financé yenn projet ndaw yi ak yenn projet jigéen ñi pour gannaaw mais dafa am lu ñuy tax ci tënk bi mooy ministère de la mission publique. nga xamante ni bii moom dafay ay montant bi nga xam ne dañ koy waajal ci dëkk bi ñu ngi def ay projet gën a am solo nga xam ne vraiment moom mooy li ci dëkk bi programme ndaw bi nga liggéey di ko def. je crois que partie boobu foofu ñu tolloo boobu ak programme bi mais li ñu jàpp mooy lii suñu rôle la programme bi gën a dëgër te foog naa ñu commencé tey ñu ak xabaar bi dañ koy dund ci collaborer sa jaam moo tax ñu naan ndaw yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi dañuy liggéeykat yor seen place di liggéey foo ko jëlee ñu ngi bàq parce que ñu ngi liggéey saa ñu liggéey ci biir parce que foofu ñu ngi ñu ngi xam ne ñu ngi ñu ko dafa soppi am kenn ku ñu jël saa jàpp ci rek kenn ku ci ñu ngi changé rek dañu ñu ngi jaar ñu ngi garantir parce que dafa am place boo xam ne pour xale parce que loolu dañu leen mbokk yi am boo déggee xale yi ñu ngi tudd ay xale yu bëri ñu ngi ñu ngi jàpp ñu ngi jàppale dañu am dina donc comme que boo déggee xam na ak baral ba man dama jàpp ne tey ñu ngi tudd ñu ngi xam ñoo fexe ba xale yi nekk ci artisanat bi ñu ngi nekk ci élevage bi ñu ngi nekk ci yeneen secteur yi ñu ngi leen jàppale leen

loolu taaral ak liggéey bi nga xam ne ni tey jii ñu ngi koy taaral bu profité rek ci xanaa yoon bi parce que am na ñaari ndaw yoo xam ne ni tey jii ndawu gaaf yoo xam ne ni ñu ngi wàllu plateau bi ñoo xam ne ni commune bi ñu président de conseil local de la jeunesse ak beneen ndaw boo xam ne ñu koy ñu koy nekk vraiment espoir ci commune bi tey bi ñu def programme bi vraiment tey jàppale nañu si kàddu gi nga xam ne parce que am na ndaw yoo xam ne vraiment comme ni nga ko am nañu yaakaar ci ñoom te ñu ne ñoom moo tax programme bi ñëw taxaw parce que ñu déglu ñu nga xam ne ñoom ñoo xam dañoo am xalaat pour ñi nga xam ne ñu tey jii dañoo am toujours ci réew mi pour ñi nga xam ne ñu tey jii am nañu xam ne participer ñu xam ne dañoo am tey jii mën a dem ci réew mi plateau bi tey jii bu ñu xoolee ba ñaari ndawu gaal ñëw fekk ko di représenté ko xam ci jeunesse bi dafa naa ne loolu lu ñu war a nangu la mooy profité ci occasion bi di xelal nekk présenté wu dinañ si représenté parce que waxtaan xam nañ la waaye tamit comme plateau dama leen nag suñu kër yi di gërëm également aussi le directeur ak les spectateurs yi nga xam ne ñoo ngi

waaw asalaamaaleykum mbokki taal ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di nuyu monsieur le maire di nuyu monsieur Camara di nuyu aussi le président Soka di nuyu moom mooy président CCA bi fii ci Kaaral donc dundale tamit suñu naataango bi ànd ba nga xam ne man ak moom peut être moom la représenté jeunesse donc euh, di di nag le fait que ñu ñu jeune parce que dina permettre yeneen jeune ko tàmbali woon nañu président président bi ñu nekk mais également aussi

partenaires yoo xam ne boo xam ne tey jii ñun ñu waaye dañoo mën a jënd xamoon ci kiosque yi nga xam ne li ñuy wax dañuy wax mais tey jii am na yeneen partenaires yoo xam ne ñuy jënd ñu ñu ko ñëw xam ne tamit ñëw wàcc suñu programme accompagné am na beneen partenaire bi nga xam ne donc ñoom dañuy ay vraiment start-up bi nga xam ne ñoo ngi ci ñoo ngi jàppale start-up yi ñu ngi entreprise yoo xam ne ñoo ngi

Thank you.

Daraba jot nañu fa yóbbu Ndiob pour ñu mën a dem inspiré wu ci seen stratégie de travail parce que ñoom ñu bokk ci les quinze premiers yi nga xamante ne nii ñoom ci ci CCA yi nga xam ne ñoo nekk ci dans les trois régions. jotoon nañ faa dem ba jot fa inspiré wu ba ñëwaat. bu loolu passé aussi jot nañ fee dem encore. maire ñaaneeloon nañu audience ci suuf si tam demoon foofu dañ fa demee itam présenté wu moom ñu ak bu bokk comme fexe dem bokk moom dafa def lu tout pour mën a waxtaan ak ñoom ñu mën ñoo dimbali ci lu bëri wane ñu moom loolu sawar na ci te dana ci ñaaw loolu aussi dafay nekk loo xam ne dafay continuer koy continuer CGA bi sacré dedans comme ni ko defee tey journée de sensibilisation boobu ñu pare woon mooy caravane bi def tey bi ñu pare woon bu yàgg la mais xëy na peut-être moyen yi permettre ñu ko pare baa ñëw si financé caravane bi ñu def caravane bi sensibiliser nit ñi am na yeneen action yoo xam ne aussi dinañ ko defaat dinañ ko sensibiliser parce que bëgg nañ projet bi demee ba ñu projet bi jeex na fekk CSA bi taxaw taxaw boo xamante ni nii dina mën a continuer boppam fii ci dëkk bi di mën a accompagner commerçant yi artisan yi ak yëpp ak commerçant yi artisan yi baykat yi seen yëpp yëpp képp ku fi yëngatu CSA na lu ñu nga ko a continuer suñu bopp a encadrer lépp loo xamante ni su fekkoo nag fële ca àll ba gis ko bu ñëwee taal ñoom dëgg lañ ko mën a am doole boo xam ne ñoom dañ koy jël nekk ci sur le marché. ñu koo xam ne ñu am seen talent boo xam ne ñu bëgg na jóg ak sa kàddu si projet bi yàlla na fekk ñu si kees am loo xam ne ñu ci suñu bopp avant muy dem banque sax ñun mën nañ koo appuyer ñoom ñu def liggéeyam ak ñoom ñu mën a rendre incha allah bi loolu passé itam euh, CDA bi euh, am na yeneen continuation parce que si ñun d'après li ma waxoon ne am na yeneen a bëri bi nga xam ne tey dafa bëgg a def benn euh, affaire te moom xamul ci lu bëri bu ñëwee CDA bi mën ko boole partenaire yi ñu ko defal te loolu bokk ci seen xamal daa mooy jëm si ñu xam lan lay def muy côté formalisation ndaw bi nga xam ne soxla ay loolu dañ ko taxaw ki nga xamante ni itam commerçant la am na béréb yoo xam ne ni soxla na ko loolu yëpp projet bi ñu taxaw la. loolu yëpp fii nga dem tey mairie nga ñëw ci nga dem ci Fatou Nakar dina la dina la expliqué bu dee jeunes yi boo demee ci commune bi Mbembe. moom mooy président président bi directeur président bi mooy dana mën a expliquer lu bëri mais comme moom itam xaw na éloigné te dëkk bi dafa yaatu danañ jël un second boo xam ne pour ñu naan ñu côté bi incha allah bëgg nañ jël ci suuf bi jëf ko ci nga xamante ni boo yow boo ñëwee eh, nga xam ne yow dañuy jóge sa projet ba pare soo ñëwee ci moom soo ñëwee mu jox la suuf si garanti parce que nga projet ba pare nga ut ko rafetlu vraiment sa kàddu parce que vraiment ñoom xaaruñ parole ba dañu gis ko de formalisé wu ci lañ jóg ci seen dàll dañ ko bëgg yéen dañ leen di wax wax dëgg pour que ngeen def expérience dina am solo li ngeen def ci li ma jàpp mooy dem seeti dëkkandoo dem seeti loolu sax am na lu ñu su bañ ko jógee nee na nee na buñ caaram def dafa rafet ba man ci sama bopp dama fas yéene dugal sama loxo ci sama maanaam tey partenaire bi ma gis ko ñëw ci taxaw dinaa ko mën ñëpp ñëpp ñëpp war nañ leen mën a jàppale parce que ci bi pertinent la te dispositif bi pertinent la buñ ci jàppee war naa mën a dem ñu jàpp ne tey partenaires yi ngeen mën a am waxuma la fii mais au niveau même national DER mi ngi financé maanaam ministère microfinance bu si boppam ñu leen di sonal mooy cible dañoo taxaw cible ñu koy yàlla dogal nag li ngeen ngeen continué yàlla dogal tey ci acteur ci quarantaine war na mën a jël donc social bi a jox ñu waaye liggéeyam tey jii nii mooy képp koo xam ne sax nga xam ne képp koo xam ne nii tey jii nii sa wàllu def la nga tàggat nga ñëw vraiment li ñu yëngu festival bi maanaam nga adhéré nga xam lan ngay liggéey parce que am na fii ci li wax noonu fii ci pour lan la pour financier la ci lan ngay yëngu bu boobaa sa jàpp la dafay yëngu képp koo xam ne jëm nga également amoo xëy

waaye bu meer ne tey jii dafa seet na population ñu ñëw a ñëw dafa naa comme parent ñu seen problème nekk ci ak ñëw ko ci xaalis boo la ko ñu mën ko ci activité boobu a euh, xanaa ñu may ñu rek peut-être ñu ba transition bu ndaw mais ba léegi ñu waxtaan ci seen taxaw yi waaye comme loolu yaa ngi fi tey te li ñu liggéey ci ñoom la CCA bi également tey partie bu rëy boo xam ne ni euh, ñoom la dafa naa tey également parce que war nañ leen mën a tudd laay gën a mais également jeunes yi nga xam ne ay jeunes am talent nekk liggéey taxaw di leen jàppale pour ñu dem ñu mën kër ci seen i morom ñu laaj leen également euh, jafe-jafe yi nga xam ne ñun également ñu ngi ko am parce que tey ñu ngi ko def présenté wu ñu waaye euh, tax tey jii ñu ngi tax tey jii ñu euh, xam ne ay jam lay dugg ci bitim réew bi koy tax yaatu li waral tey ji li gën a gaaram tey ji nii boo wootee ci cinq cent wala ci mille personnes doo mën a xam ci cent personnes ñu bëgg nag ngeen waxtaan ak seen morom ngeen yoo xam ne nii tey ñu ngeen di dugg tey ji ngeen mën a war a mën a traduire ñoom li ñu ressentir li ñu bëgg li ñu soxla donc tey ji nii man opportunité boo xam ne ñu projet bi ñu commune bi ñu SDA bi ñu ngi ko waxtaan donc madame la vice-présidente comme ni ñu joxee kàddu gi nga toll ci vraiment

ñoom dégg seen projet bi parce que dañu am comme orienté dañu ko ñëw ci ñi xam bopp ñu xamante ne bii nii donc ñu ngi réalisé seen projet. parfois ñu gën a soxla wala ñu am tuuti projet ñoom ci comme seen xale ñu la dëgg ko ñoom ci ñu jël ci dëkk yëpp bàyyi la ko léegi nag état bi fi am na kon par exemple dañu doon dañu doon jàppale boobu dina yaakaar ne dina ko mën a déglu dina ko mën a déglu alors que situation bi parce que gis naa waa Sénégal ñu jàppale ko ñu mën ko ñu ko caaw. leneen bi ak loolu gis nga ne incha allah daal di indi ñu jëlee seen i dossier au niveau de la mairie wala mairie bi di jëlee ñu CCA incha allah ñu leen jàppale ndaxte de projet boobu ñu am wala projet boobu ñu am ñu mën a liggéey ci seen réew def ci seen réew wala jéggaani ci di di yàlla ci réew may ñaxaale ci bopp seen bopp seen faanu wala seen njaayi bi ñu xam ne ndaw ñi dëgg nañu seet dëgg nañu ay taw seen waajur mais nag duñu ko forcer dañuy def pas à pas ba yàlla xam ne dëgg yàlla yàlla jaarale ko xam ne waa Taliban ñu ci taxaw taxaw ñu xool ci dëgg di nga accompagner ci ñu ñu jàppale leen bu baax a baax ci ci ñu projet ñu ko réaliser def na seen réew rawatina commune bi Thiaroye ñu def liggéey ci fekk sax tendeesu am lu waa jur wala jafe-jafe bu nekk laa gis rek saa yow wootee jeune ci réew dañoo am tuuti bi dañu expérimenté jël est ce que ANG yi si ñëw di si daan ñu nekk comme ANG yi si daaroon te xamal la ba pare bu ñu xamal loolu bokk na ci tax yow wootee si yow di fàttal loolu yaakaar naa bu ñu jógee ci pratique bi dinañu déglu te dinañu dégg su ñu waawaatee

am na loo xam ne ñu koy jëmale ci dëkk. question de confiance mu ngi la confiance daan nañu mu ngi fi waaye dañu nekk ci réew yoo xam ne nii zone yu bëri amatuñu ko tey maanaam zone yu bëri dañuy toog rek xam ne fan la ñu leen di parce que tey jii dañuy gis koo xam ne nii bu jàngee dafa jàpp ne moom su amee liggéey bu gërëm loolu la ko jox la ko jox maanaam xeet nañu am ci jeunes yoo xam ne nii tey jii jàng bi dafa mën a xam ñu mujj waaye tey jii ñi am rajo sax ñoo leen gën a déggee parce que nga xam ne parce que am nañu football kon tey su ma dégloo ci sa wax soo xoolee zone su Paaran critère yi ñu wax ci ñun yëpp daanaka ñu maanaam am na zone yoo xam ne nii amuñu formation amuñu orientation amuñu information donc zone yooyu noonu surtout boo xam ne dañoo war a dem ci ñoom xeetu jàppale bu ñu leen jàppale mais également am na jeunes yoo xam ne ñi génn nañ dem jàng am ay diplôme am nañ am xeet yu métti yoo xam ne ñu ngi leen koy def ndaxte tey jii da xëy duñu faale Euh, bi nga bi nga considéré parce que da nga war a am xel euh, am na a liggéey mu la ñu xam ko euh, di leen ko masawu waaye di leen ñaan rek ne leen di si nit su fekkee ne sax da nga am ay jafe-jafe soo ko mën wax ci kër ga nga ne toog rek di sa faj dara te ñenn ñi ne nañ mbas mi sax dañ ko war a profité dara da yëpp ñu kaas yi parce que tey bëri na jeunes yoo xam ne nii dëgg na yàlla li mu mën a wax soo wootee du mu ji su opportunité amee dañu ñëw bu yëpp jàllee ñu ne voilà dañ ko politiser wala yoon bi defe naa nag kaar ak moom kenn moomu ko ñu ko bokk suñu woote li mu mën a bu gisulee bu boobaa mën nañu ci euh, Lamine dañu bëgg nag vraiment euh, nga jàppale parce que tey ñu ngi naan ñun projet ñu ngi ko bëgg nañu wax a sëñ yi parce que tey yow am nga parcours am nga jaar jaar ba tey sëñ bi soo ñu mënee jàppale rek sa mbokk sëñ nga waxtaan ak ñoom ci déjà ci sa parcours mais également aussi parce am na loo xam ne dafa inspiré nga joxe ay nga xam ne ngi toog di xaar

tey question bi ñu si levé moom yaakaar naa problème la fii tamit ñëpp ko gis nañ ne carrément lu ci mënti am rek jeunesse bi dañuy xaw des ginnaaw mais euh, comme li euh, bi kon donc bi ñu gën am jàpp nañ ñu ngi ci chemin bi jàpp nañ ñu ngi ci yoon bi parce que tey carrément opportunité bu am daa ay produits yoo ko te gisuñu ko mais li ñu def ndànk a yéeg ñu defee nii peut être béréb doole mais bu ñu defee ndànk rek dina gis parce que tamit yi def si parce que tey Afrique wala Sénégal réew yëpp dañu am seen jeune pour ñu ci problème bi dem ci problème bi donc loolu noonu pour mu am war ñu génne ci donc comme ni mu wax tey ji suñu parcours bu ba tey parce que dégg ci ci ci ndox yu bëri dama koy wax bi may débuté peut-être suñu kër laa débuté masin ko jëndee suñu biir kër laa am ñëw

li ci aucun projet bëri fi ñu naan ñi nga xamante ni dañuy dañuy dañuy am projet ñi nga xamante ni peut être moom bind na ko ko xalaat ba ko ñoom donc ñooñu ñoo ci ëpp tey tey tey pour approcher waxtaan ak ñu gën a xam ne mbir mi si lañ bokk ñu gën a écarté te gën a affaire yi ñu si lañ bokk parce que en général par exemple dañ koy wax dafay def benn sensibilisation mais pour alors que bu dégloo moom moom du ko jëriñu bu xam ko jëriñ keneen donc affaire bi ñu équipe bi pour mën di jëriñu ci yenn yenn ci bu ëppante bu am donc loolu daal ñu ci même ak jeunesse bi ñu ne carrément rek dëkk bi suñu dëkk la te ñun rek ñoo mën a développé ñun nag ñu ci ñu ci li nga xam ne tey ci culture yi ñu yëngatu dañu ne ñu ay événement lépp dañ koy def tey gis nañu keneen ñu koy def moo tax tey ñu ne lépp loo xam ñu li koy def feneen di ci dëkk bi ba nga xamante ni day dem dootu ko jéggaane mais loolu nag moo tax tey ñu tamit ñu ñoo xamante ni ci loolu ba nga xamante ni loolu ñeneen ñu def ñu dina exemple lañu doon pour na ci loolu la ñu di ci ci ñu gën a farlu xam ne bi waxee toog tekki bi donc il faut ñu gën ko ba xam donc suñ ko gënee tey bi ñu ko financement bi ñu koy def tey doy na exemple tey ñu moom la ñu ciy ñëw nga xam ne président loolu loo xam ne ministère wax na ko bu néew na gox boo xam ne dañ fay dem tey éducation jàng la donc monsieur su fekkee ne na ndaw yoo xam ne ñoom toog nañu toog jéem ba yàlla jàppale ñu dem ñu mën a gis yoon kon tey jii suñu waxtaan bi ñu ngi leen di wane ñu mën tamit di maanaam di waxtaan ak seen mbokku musulmi te tey jii nangu ko ko la waaye nag loolu tey a tey ñu jàpp ne keneen bi ñu ko jàpp également aussi que ne muy mag ñi ba ñu jeunes yi tey jii ñoom ñoo kon tey jii soo xam ne amul formation jeunesse boo xam boo xam ne ni tey jii nii euh, daanaka dafa euh, lu na jeunes yi tey na jeunes yi ñu na leen loxo euh, CCA tàllal na leen loxo projet PAREMBA na leen loxo normalement état du Sénégal tàllal na parce que lépp ci waxtaan la mbas fii donc monsieur le maire diggante mbas mi ak immigration clandestine bi ñuy ñaari flow yoo xam ne ñu nekk di ko vraiment ci diggante bi sax na yeneen acteurs yoo xam ne ñu ngi ci loolu euh, parce que mbas mi dañu fi jotoon a réussir ñu yor ko di ci góorgóorlu wax dëgg euh, bu mbas mi dafa ñëw euh, yàq na daanaka kon tey gën bi nga xam ne tàggoo na espoir dafay gën a lëndëm donc kooku dafa jot ñu teg ko ci raay bi dafa jot ñu teg ko ci raay te tey jii dañ gis ne lumière bi ñu ñu ci social bi mais lumière également ñu ci partenariat bi donc euh, monsieur soo mënee rek dellu si pour dalal xelu jeunes parce que waa conseil local de la jeunesse nee nañ jaaxle nañ ndaxte confiance bi tey jii ñu ngi euh, projet sax mi ngi da ngay xalaat kenn jëriñu ko donc loolu ci Sénégal ci lañ ko fay ndax dañuy gis ko ubbi yooyu yëpp mi waaye maire li bëgg rek mu dalal suñu xel euh, parce que yow yaa fi nekk yow la fi euh, askan wi teg euh, te tey am na bunt yu bëri yoo xam ne nii tey jii mën nga ko ubbi ko tey jii indi seen partenaire yi pour ñu mën a réussir jërëjëf Abdallah donc euh, dañuy dellu si rek di rafetlu vraiment kàddu si bi si président CCR jóge si jóge si amee donc euh, si am réalité commune ñu koy soog a parce que première première phase bi ñu àndaloon rek dañu doon gëstu di jàmbat ñu ngi soog dund dëgg-dëgg moo tax ma ne bu fekkee da nga kaaram bëgg di xool li xew fundi bi li xew sookoon souvent dañuy dañuy sose parce que mënuñu ñu ko bàyyiwul fii dund lépp kaar dafa am solo climat Kaaràn am solo ñi ci nekk boo xoolee Kaaràn borom kër yi ay ndaw lañ loolu aussi bi ñu ci doon bàyyi xel dëkk bi boo génnee ndaw yi dëkk bi dafa fi def donc boo xoolee par rapport ak ñeneen nga dem nen pour waxee ne man foofu laa gën a tëb espoir dëkk euh, li am na solo parce que gis na nit

dañ koy xaaj boobu bari na ñu jigéen ñooñu dañu am dara wax dañu ko am formation dañu gis ko ci biir xaaj donc bu heure am ko ci jotee ñu ñàkk bi jooju ñu daw voyage parce que xaaj bi dafa jël ci amul lu jot donc ñun loolu la ñu bëgg a éviter ci suñu moo tax naan tey ñu waxtaan ak ñu jigéen am ñu parce que école bi dañ jëlee mbooloo ñu jël ay jeunes yoo xam ne ay référence lañ jeunes yoo xam ne ñu ngi ci taw wax ñu jënd ci xam nga dañ koy jàngalee ak yooyu dañ koy tolloo te loolu rek mooy loolu te yor ci action bi nga xam ne day mel ni ñu ci def ba ñu def ci ci ci ñu wax nga ay secteur nag ñu yor ah lu ci tax ñu dem xam nga moom loolu boo ko amee ci wax am na yaay ak ñu ci parce que suñu ndaw bi ñu ngi ko xamal ko parce que suñu beneen ndaw bi ñu ngi ko ak yéen xam la bu ñu ko xamee bu ñu ko xamee ñoo ngi war a renforcer ak maagam bi yàlla ko ci kër mais ñoo ji ñu xam dem ci am ko loolu dañ ko avantage ñii ay ñu ko def ay ci ko def ñëw leen ko ci benn moo leen ko ñu ñu àndal sama xale dañu bëgg benn ci lu bees bu génn wala ñu ci lu bees bu génn ko boo dee ba tey daal di ñëw ba mu ñëw. moo tax ma ne ko ñu ngi ko ñu jëlee ñu ñu dalal ci biir bi. xam nga lii ñu ngi ko def ak suñu ko ñu ngi ko def tamit. yéen a ngi ko mën a def am na ci ko maa ngi leen ko doon ñu ngi ko ñu ko nag. lan ñu ñu ñëwee ba ñu ko wax ba ñu ko waxee balaa ñu ko wax ne ko kun duka da kuma da ke kone ko mun da da a kan ko ne ko ba da ya ne da na ne ko kuma man da ke ta da an ko ta ne ko ne ko ne ko ne ko ta ne ne ka ta ne ne ne ma da ta ne ko da ne ko ta ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne dañ ko xool di xool mais jigéen ñi on a reçu cinq cent mille francs te jigéen ñi dafa jigéen ci parce que cinq mille francs yi ñoo xam ne jigéen ñi ci doo mën a leen di leen topp topp topp topp bu ñu jigéen kenn ci lu toll topp ci jigéen la ñu dañ koy jigéen ñi xam ne jigéen ndaw yi ñu ngi ndaw boobu tey coonoon dem di ci ko dem ñu ko dëkk la ñu ñu ñu ay jigéen kenn ñu dem toogut boo ko waxaatee dañ koo dem xaalis ñëpp di tax ñu ñu ko

loolu loolu loolu loolu ak kii yooyu bi dafa amuloon mais comme yàlla xëy na jël ndax de dinaa am dinaa engagé conseil ñu ko sax ba ñu def ak étudiant ñu ko ko jënd parce que li muy wax ci sa kaw donc bu fekkee gis nañ ne ci li nga xam ne dañuy ñëw doole ñu bu ñu amee ñett dañu leen di rek ñu xam ne taxaw nañ su ko woo na tanto eu não sou bom, mas eu tenho essa máquina que eu tenho que fazer comigo. Mas eu não vou fazer comigo, eu não vou fazer comigo. Que outro lado, que outro lado eu vou adorar, mesmo que eu tenha. Eu não tenho nenhuma razão de ver, mesmo que eu tenha entendido. Nenhuma razão, não tem que Begitu. Kalau baik, kita boleh bermalam, tahu dalam sana. Baik, boleh kita bermalam dulu.

nga xam ne ñoom ñoo dëkk yàlla dañu ko taxaw bi nga xam ne war nañu xam naa ne bari nañu jël ci lenn xam na lu am solo la rek dina yàq développement moom daal doo koy gis kenn du kontaan rek lu doon taxawal rek nga xam ne doo ko ñëw. waaye social bi tey bu taxaw bi dañu leen di am jàppalante

ñu ñëwoon donc dafa commencé ñu xam ne bu ñu waxee ci teyoo taaram nit tànkuñ dox dañu ne ñu ngi yëngu ay tànkuñ dox ñu ngi yëngu ay ñu ngi tànkuñ dox loolu mooy indi bi loolu mooy laa am comme tànkuñ tànkuñ vraiment di rafetlu vraiment changement ak ñu ngi doon xanaa kàddu yi man boo ko déggee sa xol day tooy parce que dina am une opportunité dañoo nekk ci biir bànqaas man parce que tey su dee wàllu PDA yi te jàppale PDA bi jàppale zone yi dafa naan lu mu wax kenn mën a ci biir parce que mën nañ ko gën a soxla ci ay mais tey commune bi mën a taxaw donc ci ay acteurs xanaa ñu Thank you. dañ ko ko waaj a dem ci kër léegi ci ay ñaari weer ñetti weer la ñoo doon taxaw soxla financement yi ci tànk campagne war ko mën a dem def ay jéego yoo xam ne ñoom ñu wax am ñu defal nañ leen li ñuy wax crédit boo xam ne nii bari baax adapté na ko ay ñoom suñ ñu jigéen parole baax ngeen ko soxla ak partenaire financier bi xam ne loolu la ay baax am na Sénégal bu ci dem

ne dama fas yéene ànd ak moom dina def liggéey classique maanaam tool nga daan lajal nit ñi na nga ko daan defee loolu terewul la loolu partenaire yi ñoo ci jógee bu dee ci wàllu production bu dee ci wàllu euh, bu ñuy wax opération économique yi ci wàllu ci wàllu CCA bi dañu bëgg nga développé produit pour adapté accident bi ñu indi loolu indi crédit campagne loolu indi également crédit yoo xam ne nii crédit fan la koor bi nga xam ne waxtaan yi apporté balaa nga naan am ko waaye tey defe naa ne li ko wax ne tool bi am baax la am na ko parce que ndax ñu xam ne ñu ko baaxee yoon kaaba dafa yomb yoon bu doon feebar boo xam ne ni tey ndànd bi ñu ko jàppale ñu wax waxu vaccin waaye day ñun defe naa suñu vaccin bu nekk mooy tey li nga xam ne dafa ñu tey te moom tamit dafa ko tëjee mooy les gestes barrières mooy tey jii raxas bi mooy takk masque bi également conseil dañoo bàyyi xel ci ngelaw rencontre yi nga xam ne amul njëriñ parce que bu ñu demee ba def par exemple loo xam ne ñu mën nañ ko def sëriñ wala leneen kon am na yoo mën a éviter mais caravane bi dafa am loo xam ne dañ ko xamal parce que tey euh, dafa naa euh, image yi dina ci dellu si parce que sama xel yi ñu xam ne ñoom dañoo xaral donc danañ ma woon téléspectateurs yi li nga xam ne mooy tey jii nag ci programme bi def nañ ko ci ay distribution bi laaj parce que tey loolu dafa am solo geste la boo xam ne ni peut-être pour ñoom ñu si am doom mais ki nga wax taxaw masque xaba dina waral man aw ma lu mu jëm mais ki nga def masque bi nekk taxaw masque am na information boo ko def mooy solal daan beneen information bi mooy tey jii nii mairie ñu ngi liggéey ak askan bi waaye askan bi dafa am loo xam ne ñu mën ko maanaam tey versus att få med Jakobsson. Det fattar man inte. Jag ska göra allt bort, allt bort, allt som jag vill. Men på tal om att prata till besökarbetsdagen, bygga sig upp, bygga sig upp afton, och då är det en miljon känner, miljoner folk. Men det kan vara såklart jävla i Skånesen. Jag har en secteur social yi parce que tey que tey jii am na prévoir boo bëgg a def te coordonné ci artisan bi parce que ñoom tamit ñu ngi liggéey liggéey bu am solo tey bëri na yoo xam ne tey nekkoon ci mbedd mi

mën na nekk xaalis mën na nekk matériel mën na nekk leneen parce que boo formé sport apprenti defe naa ba mu war a am place boppam doo ko seetaan donc boo doon say say plaidoyer boobu mais également aussi nga lancé un appel parce que yow la fi yàlla tax a nekk président CCA ci wàllu mbas mi nga xam ne mooy tey jii geste barrière yi donc ñu ngi war cee àddu pour que tey ñu mën a xeex mbas mi nga xam ne jërëjëf Abdallah comme ni nga ko waxee xoolal bi parce que xel bi boo ko jëlee ci rajo bi internet bi ak télévision bi yaa ngi gis vraiment deuxième part bi xawaay bi yaa ngi koy def wax dëgg yàlla ci tamit parce que man de sama bopp mais nag gis nañ moom président def ko parce que vraiment waaye nag ñun ñaax doomu aadama si mooy gën ci bàyyi si ñun. parce que ñu bëri solution ay masque te daf ci am loo xam ne wax dëgg yàlla ñu moom yàlla def na ko digal bu yàgg ñu jàngul dégg nañ ci ñu jàng ñu wax ne nit ki luñ gën a bëgg luñ tënk ak dund bu mën a doon fekk la jiite parce que ñu mënta jaar bi yàlla ko sëf yàlla dimbale ñun ñu yàlla digal nañu juróomi waxtu bi bu ci ne da ngay jàpp ànd ak sa waaye waaye diggante fajar boo ko jullee jàpp ba sa ñaan xëy na balaa tuuba ñu toog ba mu toog sa loxo ci diggante bi li ci war a jot a bokk arrangé bi dafa dugal bàq bi ñu soxla yee ñu ko jëm ko ñu ko xamal bi tam te yaa ngi jàpp ñu jàpp ñu ko sëri wala ñu ne laaj bi ñu ñeneen ñi aussi ñu leen di wax ci comme xam ne la fekk la jot te ñu ngi war góorgóorlu delluwaat ci loolu nga xam ne mooy ñu xel ci loolu ñu ko xam ne amagul ñu ñaan yàlla yàlla fayal ko ñu dem ba faw di ko jëm yal nañ koy dégg rek dañ ko sax tëdd moom itam te ñu koy jël parce que ñu koy yaa mën a sauver sa bopp vraiment docteur li mu mën mooy digal la état li mu mën mooy jël ak suuf la yor seet si ñu ñu digalee ñu nag lu mel ni boo amee ba ci xaar état ñun ñëpp nañ ci nekk ku ci am sa ñaar doom ñu ko fee dugal dugal ko ci yàlla moo lay ci moom ak président boobu ñu dem deux orange deux sept boo xam ne jëlee ci weer orange deux sept donc biir biir conseil ndax biir fay ko ni mbooloo yi dem yàlla mën na est-ce que dana mat ak du mat yàlla ko ko baax kon nag ñu ngi ñaan yàlla defal ñu ba ñu ñu ñu ko moytu ba yàlla baax ñu ko dund waaw bu loolu paasee dinaa wax ak président mbokku ak mbokku assurance yi damay faral di ko wax dama naan ñoom dañoo war a xam suñu bopp parce que li tax ñu war a xam suñu bopp mooy ñun dañoo bokk ci développement non développement bi. te tax na lu mel ni projet yu mel nii dinañ ko def ci tey ci tey boo ci duggee tey nga doon ci fay sa empreinte mun nga def li nga xam ne tey béykat na tey jii CEDA bi ñu bi ñu tëral ko ñu mën a gën a xalaat ñu mën a boo ko jëlee formation bi nga ne ci ñoom yëpp day nekk dara des ne ci gën a ne dafa mën boobaa nag dafa dafa bu teel a bu teel a war a def lu mu loolu lépp projet bi ñu doon def ñu ngi ci am lu bëri bëri bëri te nag activement yooyu dañ xam ne ñu doon jóge ci projet bi te xam ne loolu itam vraiment ni ñu def nii xëy na d'accord ñu ngi ci am yàlla kenn du ko baax parce que tey doomu aadama mi nga xam ne ci loolu la dëkk la dëkk ci loolu muy ndaw loolu day mag bu ñu war a dénk mu ngi xëy na mu tànn njàngam yàqu parce que loolu daara sotti la parce que ko joxaat ko parce que yow yaay dernier recours am kon yow moom nga responsabilité bu mag boo xam ne nii am la war kon foog nga téye xool yar bi d'abord yar bi dëgg moom xool encore mu nekk xelam pour que mën ko continuer te mën a dugal nekk ci boppam bu ëllëgee mu dem moom mën a yor loolu tuyaaba la boo xam ne nii xëy na yàlla mën na ci xëy déedéet kon nag mbokku artisan yi li ma leen di daal mooy dañ góorgóorlu ci jàngal xëy na ñu dëkkee jar leen ci xel rafet te gérer leen parce que da ngay atelier aussi am na lu ñu wax ne dafa xool leen ñu ko lu ne am na lu responsabilité am xel bu looloo parce que au moins dama la wut benn bidon dama la wut dama la wut benn pan parce que yàlla mën na laa dénk ak téeméer bu am ci solo ak di valeur yooyu boo ko defee doo dee gis sa bopp. bu ñuy wàcc waaw mbir mi boo laalee loo xam ne nii wóoluwoo ko da koy jaral parce que loolu itam dafa am noo koy doxalee. donc wante de premier vague bi bi ñu démarré nii dafa ñu doon bagage même bu oto bi jógee Dakar ñoo agsi doomu aadama xam nga mënoo indi ci ñoom jox la loxo ñu leen doon mais même bu oto bi jógee Dakar ak si ñoom Dakar gee mbas maa nga fa mais ci ñoom jógee fa ñoom jox la loxo xam nga dafa war ci xam nga suñ ñoom ñu pare ci ñu dara ci waat loolu daal maa ngi koy ñaax suñ mbokk ak yi am ci laa xam ne ay doomu jàmbur aussi ngeen leen dëgg te ndaxte dañ leen a yaakaar yaakaar boobu nag yàlla bu ñaax

liggéey ci monsieur Omar donc jox mbokk yi maanaam Konté ak madame bi nga xam ne nii tey jii moo fi teewal conseil local de la jeunesse. ñu tàggatoo tàggatoo ci mbas mi ñu joxe lancé appel mais également aussi def nañ vraiment ay ouverture yoo xam ne lancé appel jigéen ñi ak képp koo xam ne dañu yow yow waaw asalaamaaleykum Diagne di wax rek ci fi nga xam ne moom la ñu doonalee ñu période mbas mi donc ñu bàyyi xel ñu mbas mi te deuxième vague bi ni mu ñëwee dafa am doole trop

ku koy def karoon tamit bu bu dina bëri na ñoo xam ne bu ñu koy karoon def karoon noor donc loolu foog ñu baax a xam parce que nag bu fekkee suuf rek li nga dugal ci bënt bi lu yomb la donc loolu ñu baax ci bu baax a baax xam ne ñun sax seen nga xam ne sax aussi ñoom tamit du tee wax moom nga xam ne mu ngi ci kër gi parce que ñun ñu kër gi yàlla seenaa bi ñoo xam ne mu ngi ci kër gi te ñooñu ñoo koy war ba ba gën a sonal donc ñun ñu baax bu dee ñun mën nañu wax ba czyli winniaty metory prywatności bankowa. Merci beaucoup Lamine dégg nga discours bi moom macha allah xanaa tey beneen yoon rek ñu jéem a yokk waxtu bi ma am ba. mooy garage ak marché ci diggante jënd ak jaay client bi ak jaaykat bi ñun jigéen nag marché dëgg yàlla bu ñu xagalee ko du ñu ñun war a respecté comme que xaalis bi dañ koy jëfandikoo dañuy jëfandikoo lépp loo xamante ne dañu koy jokkalante dañu war a gis suñu bopp aar suñu bopp aar ñuy jege aar dëkk ñoom aar ñoom ñëpp da leen di ñaaxal rek suñu yaay yi dañ toog seen wax di yëkkati laal seen jëm dina dina toggee saa su ne ñu war a sant rek ñu laal seen jëm ñu laal seen jëm ak suñu jaaraat yëpp waaw ndax am ci caay lekk bi bu toogtee loolu bu bàyyee teg bi jëm bi nga xam ne ak sa loxo joxaat ko la loolu yëpp micro bi yaa ngi ko indi na ko tey tey naa ngi nekk bi ci daaw xëy naa dèjà te ñu ngi koy liggéey xam ne ñu ñaan yàlla ak ñu ci def li yàlla def def ñu seen yi ñu tey ñu mën a tàmbali suñu activité dafay yomb tamit mooy ñoom xam ne ci génn rek dafay naan ñu dem ci xam ne li ñu ngi koy def ñu liggéey ci fekk ci sant bu baax ñu jaar ci ndox mi ñu fay loolu comme ni ñu ko waxee ñu fàggal ñu ci loolu nag ñu ngi jotewaat CCA bi président te bi ñu ko jël wala ñu ngi ko xamal ci daal ñu ngi xam ne ñu ngi ci tout temps ci loolu bi wala ñu dem ci biir ndànk ñu xam ne ñu ngi ci boole bi wala ñu ngi ci benn zone bi comme ñu ngi compte ci taal lépp ñu ñu ci rek duñ déggee ñu ñu am nañ ko ñëw pour ngeen xam ñenn ñi nag ñun war a bi. ñun dégg nañu ci kàddu yi na ci xarala ñu ngi koy ci baax

lu mu ñëw ñëw ñëw am nañ juróomi ñett milliard yu xaar loolu doon na jëmb rek dañu dem rey ñoo xam rey ñoo bi sax mënuñu ko def dañu dugg rek bu dee bu dee séance ñun te boobu dañ demoon pour voté budget ARD agence régionale de développement foofu région bi ñàkk na ñaar weer ak benn absent wu nekk ci département Fatick ak Gossas man mii la loolu doy waar boo gisee ci xam nañ ko ay kilifa wàññi ko ñu wàññee ko donc loolu xam ne lu jar ci kaw yeneen bi mooy li ñu dégg ci à l'instant de un de xam ne amoon na si loolu ci ñun ñoo xam ne ñun problème ñun ñu xamal ne ñun virus bi dafa ñu teew virus bi dafa dangereux bi nga xam ne dañ ko sàpp ne gaaw a gaaw ñu ko gaaw mais kooku di ko dafa dund ñu ko xam nañ ko ñaar ci loolu aussi dañ mën a tàmbali ñu gis ne xaaral ñu bëri ñu ci ñu naan mën cee sa tàmbali ñu ay liggéey ñu faat te moo tax vigilance bi dafa war ko gën a gën war a gën a nekk de donc démb bàtt démb def nañu ak docteur Ndao moo tax jox nañ instruction service d'hygiène ak agent benn poste avancé ci frontière bi pour di saytuwaat nit ñi di xool ñu dugg ak ñu génn mais tamit ñi ñuy nekk ci biir dëkk bi yàlla nit ñi ñu gën a fagarwaat gëm nañ feebar bi ñu bàyyi di xam ne dañuy wax rek maa ngi ñaan imaam ñu def ci xutba jar ko xam nga église moo bokk na sax dimanche dañ koy xutba dama sax maa ngi ci imaam rapide dinaa ko woo téléphone mu toog ko yeneen imaam yi ñu ciy def ko xutba di waxtaan bi parce que affaire bi doy na xale yi ñu ngi yi ñuy wàcce bi ngir yàlla nañ leen xool balaa ñuy dugg ci kër yi nga xam ne balaa ñuy dugg dugg am contact ak nit parce que école yi aussi liggéey la xale yi mën nañ ko am rang bu leen def def xanaa xale yi feebar yi mais xale yi xam ne dafa dugg leen bu fekkee ne xam ne la leen di def mais bu ñëwee ba am contact yi mën na ko sama donc ak ñi nga xam ne am nañu ay feebar te xamuñu ko am nañu ko ci feebar bi am na doole si moom en tout cas ñun li mu gën a parce que déjà ñoom attaqué nañ commencé nañ liggéey bi école yëpp jox nañ leen ay ci suba pour ñu xool nag ñu defaree ay masque pour marché ak gaaru ci masque moo xam ne ñun dañu ko mën a fóot salaat parce que masque à jeter yi arrangé wu ñu nga xam ne doole sax jëm na jënd masque deux cent franc nga xam ne boo wàccee ko fóotaat naa dinañ ci suba defee lu am solo dèjà fii ci bi lépp lu jëm biir masque lañ ci nga xam ne ministère des forces armées ñoo ko mel buñ ci tollee leneen dañu mën a nga xam ne ñoo nekk école yi aussi ak ñun ñoo ñu defal ñu situation bi pour xale yi waa bi joneen jox na ay masque de yi jëlee ko démb xale bu nekk ñu dafay joxagum benn masque yooyu ñu ne commune bi dañuy renforcer donc loolu aussi dinañ ko def ngir feebar bi du masque ak laaj loxo duñ ne ñu war a parce que milieu yu mel noonu lañ ko jëlee parce que dama toog grand place kenn jëlee kenn doo xam suñu jëlee dama ko waxtaan ngeen mbokk naan kaas ataaya ñun ñëpp ñu ngi gën a def bëri mooy cas communautaire ngi waa dëkk bi parce que dañuy soxla dañuy sumb ne dañuy fekk ndax dañuy soxla donc a a a ñun ñu bu ñu feebaree ñu aji bu dem lekk ñun bu ñu feebaree tey kan nga yor suñu kër ñu ñu tëjee tey kan nga yor suñu kër lépp du soxla ci ndigalu affaire bu affaire bi nee naa wala ci tey yàlla ko ñëpp xam nañ ne ci yàlla ko yor mais duñ ko wute dañu ñu bàyyi ci question yooyu bu ñu tuddee boo duñ ko wuti su bañ ñëwee ñu nga déglu dee mais dañu ko jëlee dañu xaar mu fekk boobu ñun ñëpp xaj na ñu changé mais ñun dañu continué sensibilisation yi. maa ngi ñaan sama mbokku leader xam ne nga xam ne parce que ku nekk aussi am na ku ñu nga xam ne aussi ñu waa. Kaolack yi waa Touba yi et cetera ku nekk su fekkee daayira war na jël après aussi am nañu ndaje yoo xam ne le sous-préfet moom daf ma koy tooñee parce que dañu bëgg daje chaque semaine ñu ngi taal am na daje te bu mu nekk nii daje bi ko war a état bi terewoo ko naan waaye ñu ngi am distance xam ne état bi dañu ko jël suñu place bu ñu gisee ñu daje ñun mën na ñàkk nañu ko bàyyi ndax bu ko defee comme la ñu compte ñun dañu def investissement bu def seen xaalis pour activité

loolu tëbal noir bi ak xëy bi pour bañ xol bi nekk toujours en contact ak nit ñi. am na mbéy mi nga xam ne boo demee boor nañ la am na mbéy mi nga xam ne bi parce que centimètre jot lay dal. loolu aussi ñu ngi ci bàyyi xel ñu jéggal aussi parce que bu ñu xamee ba bu ñu contexte bi moo laajate loolu donc ku ñëw si ci biir bi nga xam ne feebar day tax ñu ñu tëbal bëri. jamono bu dee Ibrahima Diamane rek dañuy liggéey parce que aussi dama ci profitoon pour dugalaale ci di wax aussi situation continuer waaw peut être si suñu thème bi dina am yeneen yu génnaat dina amaat yeneen yu génnaat est ce que ñu foog ñu tegee ne gën leen mën a aar parce que am na xam ne ñu gisee ñenn loolu moo objet loolu moo gën a tax tey ñoom ñu sacrifié wàcc ànd ak yéen te aussi gars yi bu ñu gisee ah pourtant am na solo donc vraiment di jéggalu ñu ko am ni booxee suñu wax na xam ne yoo na aussi ñun wax ay sant nit lañ dañu lu baax rek te suñu askan lu yi nag lu baax da ngay dund tooñ lu baax la xam ne la te yombul donc loolu li ñuy waakaar bi vraiment di ñaan rek yàlla nit ñu bu baax a baax ba soxla bu buñ ko buñ ko yàlla nit ñu bu baax a baax ba xam ne feebar dañ koy dégg rek yàlla buñ ko gis yàlla buñ ko gis ci kaar donc loolu laa amoon comme moom vraiment Abdallah di la gërëmaat encore une fois nom des populations de Kaar dañ jàpp comme ni nga ko waxee dénk naa la xale dénk naa la xale bëgg naa

boo ko defee seen kàddu yi ñu ngi leen di leen loolu mooy li ñu indi leen fii mooy suñu borom bu màgg bi yëpp mooy suñu borom bi yàlla yàlla bu mën ko mën mooy suñu borom bi ñu ngi leen di leen fréquence Euh, boo xam ne nii tey jii képp ku nekk Sénégal di nga a euh, xam ne nii ñoom laa bokkaloon plateau bi euh, nga xam ne nii mooy conseil de la jeunesse Lamine Konté di gëm boo xam ne nii tey am na avenir donc day référence ci jeunesse bi fekk ci nga xam ne nii tey jii mooy jiite conseil communautaire bi. Euh, donc di leen di jox peut-être di tajee su nekk ay peut-être euh, semaine yu néew euh, pour yeneen xeetu émission yoo xam ne nii vraiment dinañ ci mën di waxtaanee également aussi yeneen xeetu accompagnement yoo xam ne dañ paree baax na yeneen partenaires yi ñu ngi koy amal ci ci commune bi di gërëm ñëpp di sant ñëpp Euh, donc tey jii dina am numéro boo xam ne nii dañ ko bàyyi mu défilé ci xew euh, émission bi donc mu doon numéro CCA boo xam ne tey jii ci soxla CCA boobu la a jot soit le président wala secrétaire bi euh, ñi nga xam mi tamit dañuy fi ñu mën a am information yi dañ ko mën a joxee au téléphone donc di gërëm di sant ñëpp di leen di jox dëgg-dëgg donc xam jërë ngeen